والعزة والتعظيم والجلال على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما إفلني تيانا وليس لي أمل ألخاك يا المليث والمحبة والتعظيم على نبي والي سلام ربنا دائما عايز سجل خيتك وليس لا لخاك يا أمليس والمعبك والتعظيم والغفار على نبي وآله آه، أجمهينا حب جب سالم جيانا أسبل علي رداء ستري يشملني ووالدي وأشياخي مولانا على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما

ختمتنا بداءة علم سجيد المدايا على نبي وعلى أجمعين سلام ربنا دائما سجل خيتك وبيت يا ربنا بيع الفدود فكن مكيزه ربنا بالجود والكرم على نبي وعلى أجمعين سلام رفدا دائما عام بسجل خيرك وحد خديجة وعلي وابن حارشة ومن بدعته زمن زمن على نبي وعلى أجمعين سلام تالي بشيخ لخوتك وثم بن عوف وسعد وزبير وطلعة كل في لا يغلى على نبي وعلي أجمعين سلام بنا دائما عامر سجل خيتك وسم بن خوف وزاد سابيا لخيتك سابيا لخيتك أبو بكر زاهيا أنا عمر زاهيا لخيتك أنا عثمان زاهيا أنا علي زاهيا loxo yi ca kaw tibb saalum loxo yi tibb saalum loxo yi tibb saalum loxo yi ku mu jaral loxo yi ku mu jaral asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ci étoile tv comme niñ leen ko doon waxé ci seen site bu mag bi nga xamni ne ko taamul seen bop ba légui ñu nekk ci ndogu yi nga xamni wa IJET e ñoko doon organiser di association bu am solo boobu nga xamni comme ni ma koy waxee bi ñu jugee juddoo yàggul ay jambar lañu waye tay ñu fekk ko xamni dafa nekk partenariat di couvrir événement bi muy jibi sey ñu gën ko xam ci Djibi Café Events borom entreprise bu mag boobu nga xamni ma sha allah café gu sel café gu bax café gu jaar yoon boo wër ci tiawon ci mom ngay ñew mu nekk ko xamni ndaw la waye gëm bopam ma sha allah nekk ndaw lo xamni mënon na def comme yeneen jeune yi ni ñi def mais mu am ambitieuse am ambition nekk ci li nga xam ne mooy liggéeyam ba tey ñëpp ràññeeku ko ci ci diwaanu Tivaouane waaye bala ñoo sori dañu koy bàyyi mu nuyoo jibi ñoo ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum mbokk jullit di maa ngi nuyu ñi safoo étoile TV ñëpp di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp quoi di delloo ñëpp jukkal ci weeru sàll bi ñu nekk nii. mu nekk lu am solo ji bi tey nga nekk ndaw macha allah ñu gis la ngay yëngu ci benn liggéey bu am solo muy wàllu kafe nekk liggéey boobu tey boo ñu doon wax ji bi sa diggante ak café ci lu gàtt rek parce que ku ne xam ne liggéey bi ci liggéey mais boo ñu doon wax sa diggante waaw juste c'est mon choix là quoi C'est mon choix là. te aussi dama ci am passion te aussi euh, bëgg naa ko réaliser quoi incha allah rabbi waaw. lu am solo tay ñu fekk la ci mouvement bu mak muy UJET tay ñu amal ay ndogu macha allah ku wax walu ndogu nak xamni café mo ci jitu mën nañ parce que bu dog jotee mom la nit ñi gëna soxla ñom ñu taamu la signé ak yow partenariat nga ñew di leen liggéeyal mais tay liggéey bi journée bi ñu gis depuis ci le matin yaa ngi si liggéeyu café nek liggéey bu dur te nit ñi dañuy gis ni ñom benn kaas bi ñi naan rek mo leen ci intéressé ñu naan après ñu sanni kaas bi mais yow mi nga xamni yaay nek toute la journée pour di liggéey café ji tay sentiment bi ci liggéey bi nan lay démé wa amour la aussi limay wax rek café mom c'est un bon réactif quoi manam comme li nga wax rek benn kaas boo fay jël rek mën na le rendre loo xamni si peut être da nga am amour quoi léegi pratiquement boo gisee ñu bari léegi romb ci benn sax gis benn jakartaamaan boo xam bi nga téye nga xam benn kii yor benn kaas amul la ko sax nekk si liggéey bi te gars yi ngi lay xaar mais tey boo ñu doon synthèse rek jox ñu sa dernier mot ñu joxante waat rendez parce que dinañ amalaat yeneen waxtaan yu gën yaatu macha allah boo ñu doon synthéser rek jox ñu say dernier mot lan lay doon. waaw affaire moom mi ngi comme vous le voyez jeune et j'ai appelé créer une entreprise tuddee entreprise Djiby Café Event c' entreprise de la jeunesse quoi parce que tey ñaanal yàlla aussi jeunesse Tivaouane dem ba ciy liggéey loolu ñaan yàlla incha allah rabi waaw mu nekk loo xam si ba initiative jeune la quoi si maa ngi ciy woo ñoo xam si entreprise dan koy événement am ay jàng wala soit ay euh, daayira waa boo ñu woowee dinañ la ko traité seggal la ko aussi defal ko sa tëral la ko incha allah rabi suñu numéro téléphone mi ngi 77 860 8009 77 860 8009. président ki nga xam ne mooy président ISET rejoindre nañu Khalifa Ababacar Ndiaye tey Babacar boo ñu doon wax ci sa diggante seen partenariat ak Jibi avant ñuy ñëw ci suñu waxtaan ñun ak yow particulièrement mais seen diggante rek ak partenariat ak Jibi Café Events lan nga ñu ciy wax. waaw salaamaaleykum. Pape maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, di jiital ci nuyo bi sunu xalifa Serigne Babacar Sy Mansour di nuyu waa Étoile TV di la nuyu moom frère Pape di nuyu Jibi dama ciy sawar parce que dama fekk ngay wax ci moom mu nekk un jeune très dynamique ñun ñu bokk nekk Tivaouane ma am ci lu ma ko xam di lancé benn appel solennel jeunesse su Tivaouane nu copier ci moom entrepreneuriat amul début amul fin amul âge lii muy def nii c'est un exemple donc maa ngi demander ñëpp ñu copier ci moom tey jii li tax ma koy il est quelqu'un de très dynamique il est très déterminé ba pare li ma ko ci ëppal solo mooy dem bi muy dem ci mbiru boppam di dem ak doole boppam loolu c'est très important c'est ce qu'on appelle l'automotivation vraiment mu doon lu nga xam ne mu ngi ci ma ko ciy encourager moo tax la séenee ngay wax ci moom ma ni naa ci sànni loolu mhm. balaa ñuy dugg ci activité UJET bi nga xam ni dama lay jox rendez bu fee ca tànt ba mhm. fa ñuy defee exposition mhm. ñu yaatal foofu li nga xam ni mooy restant wu activité yi voilà mu nekk lu am solo mbokk yi dégg ngeen président loolu la ki nga xam ne mooy frère am muy jibi ñoo ciy am mbégte ak contentement comme ni mu ko waxee jeune la mënoon a defi leneen tey mu jël ay initiative am di liggéey liggéey bu solo ci Tivaouane dem ba tey comme waxee nit ñi ñu ngi ko ciy ràññee bu baax di waxaat nit ñi ñu gën cee jàppaat parce que liggéey bu am solo la te li muy def mi ngi siy góorgóorlu te ngi koy jéem a yokk di xool nu mu ko màggalee macha allah ndax café ci formule boo ko soxla jibi daf la koy jox comme ni ko waxee sànq joxe ne numéro bi incha allah dinañ am ak leen dig daje incha allah dinañ ñëwaat léegi ci étoile TV الخير مسترشدين الخير مسترشدات الخير جغلن مقل محمد جغلن مقل محمد جغلن مقل محمد جغلن مقل محمد جغلن مقل محمد كم كتجارل كم كتجارل لخجاكو كم كتجارل لخير كنا بجارل loxo guna bi jaral loxo ca guna bi jaral loxo yi waate ba saalum loxo yi waate ba saalum loxo yi waate ba saalum loxo yi kuy taalibe Cheikh loxo ja kaw kuy taalibe Cheikh loxo yi kuy taalibe Cheikh sa loxo ja kaw kuy taalibe Cheikh loxo yi kum ko ci jaaral loxo yi waa muxtafi nay loxo yi waa muxtafi nay loxoy waa muxtafiin loxoy mustarshidiin loxoy mustarshidaat loxoy mustarshidiin mustarshidaat mustarshidiin loxoy mustarshidiin waa muxtafiin mustarshidaat loxoy kuy tali Cheikh loxoy kuy taalibe Cheikh loxoy foofu ko ci jorom loxoy foofu ko ci jorom loxoy Abdoulaye Baye Mamadou Aminata yaay Abdoulaye Baye Mamadou Aminata yaay Abdoulaye Baye Mamadou Aminata yaay Abdoulaye Baye Mamadou Aminata yaay Abdoulaye Baye Mamadou Aminata yaay loxo ca kaw abdallah gaay mamadou aminata yaay abdallah gaay mamadou aminata yaay waaw abdallah gaay mamadou aminata yaay abdallah baay mamadou aminata yaay mada shaybata mami mamadou shaybata mami mada hashimai محمد هاشم عبد مناف مامي محمد عبد مناف مامي حسين مامي محمد مامي حسين neen ko waxee woon ba léegi ñu ngi ci étoile TV tey ñu taxaw ak ki nga xam ne mooy les membres fondateurs du mouvement jeune Papa Thié Faye ñu ngi lay nuyu. waaw di leen ñu ngi lay nuyu di leen sant di leen nuyu di nuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu suñu kilifa diine di nuyu suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan yàlla yàlla guddal fanam. may ko wér gu yaram ak fan wu gudd. waaw mu nekk lu am solo Papa Thié tey ngeen taxawal activité boo xam ne nekk na lu am solo jaamu discrimination tay mu nek lo xamni lu jafé c'est pas évident ñu gis mouvement bi yagul mais ak doole bi mu am tay bo ñu doon ñëwul ci mouvement bi lan nga ñuy wax wa mais pap Seye li nga laal question bobu nga ma laaj dama ci am contentement ak sawata pour tontu la ci parce que ñun dañu doon ay xalé yo xamantene dañu gëm suñu bop gëm suñu bop moo tax suñu mouvement bi buñ ko ubbé yagul mais fim tol ni ñun sax daf ñu xawa sax xawa jaaxal mais lepp sante yalla parce que nit mom lepp loy def rek dañ ci and ak fit ak ngëm-ngëm te amna lo xamantene xamante ji boko jii boo ko dee def biir Tivaouane bo amul fit do dem parce que ñun fi ku fi ñëmé rek dañ la dé mu nek lu am solo tay ñu gis ndog yu nek ay ndog yo xam yu am solo la ndog yu am doole ñu gis ay plat yu différent ku xam wax lool wax fond ñu gis ay yéré ñu boole ci ay yéré pour nga daara yi mu nek lu am solo lo xam ñu daan gis yenn mu ma mais tay ñu gis ko ak ah, Tivaouane ngeen def ko mu nek lu am solo lu nek ci ginaaw jet ba jet mëna def lool lan moy secret jet wa mais lepp lo gis rek waxtaan la rek ak idée yu naaj parce que ñun suñu mouvement bi amna ay xalé amna ay mag te Serigne Babacar ci do daan wax naan mbooloo dama ci ragal ay xale kase mbooloo dama ci ragal ay mag kase mais mbooloo bi ma gën a ñemee mooy mbooloo bi nga xamante ni day am ay xale am ay mag loolu moo tax ñun ñu fépp ñu yegg si rek loolu moo tax ñu yegg si fii mouvement bi nag xam nga boo gisee lii yëpp volonté la rek ak bëgg-bëgg parce que nit lépp looy def rek da nga ci war a ànd ak volonté ak bëgg-bëgg loolu kase la. merci beaucoup merci Papa Thié am nañu mbégte ak contentement ci moom comme ni ñu ko waxee ba xam tey mu mel ni dafa am loo xam ne da ko war a wax ci loo xam da nga fàtte woon boo ñu doon wax tey lan lay doon waaw mais li ma fàtte woon mooy ñi nga xamante ni tey jàppale nañ ci ku ci mel ni suñu maire Demba Diop si koo xamante franchement parlant ñun ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram parce que démb lañ fa dem mu yëkkati trois cent mille jox ñu ko te tey jii bari ay autorités yi nekk Tivaouane yoo xamante ni tey jii dem nañ fëgg seen bopp te jàppale ñu mais moom dañoo dem fëgg buntam mu jàppale ñu franchement ñu ngi di ko gërëm kii comme ni ñu leen ko waxee woon ba léegi ñu ngi ci étoile TV ci ndogu yi nga xam ni waa IJET ñoo koy organiser waaye ku wax ndogu wax préparation wax jigéen tey ñu taxaw ki nga xam ne mooy Astou Mbaye bokk ci lay nuyu. maa ngi a wér a wér di leen delloo njëkkal di la nuyu bu baax yow Pape nekk lu am solo tey Astou ñu gis ngeen taxawal loo xam ne lu rëy la macha allah parce que nit wóor ba ngoon nga togg jox ko mu lekk loolu mu nekk am loo xam daf ci am muy yiw bu rëy tey yéen ngeen nekkoon ci waañ bi def préparation bi tey ni ngeen dundee journée ba mu egsi boo ma ci doon ñëwal loo may wax. waaw ñun journée bi ni ko dundee nee rek la contentement lañ ko dundee réussir bëgg suqali suñu gox parce que ñun UJED rek moo ni ñor dañuy dox ci social. jàppale prisonniers yi doon a dogu hôpitaux yi pour ndongo daara yi loolu rek mën tax a jóg ñun doxuñu leen lu dul social social rek ñu ñor mu nekk lu am solo asu nekk jigéen boo xam ne bu ambitieuse la tey ñu gis ci suba léegi nga takk seen nekk ci liggéey bi bàyyi woo ko góor ñi lu waral motivation bi lan moo la motiver ci UJET ba waral motivation boobu li ma motiver ci UJET leen rek la suñu président Babacar Ndiaye mention aw ndaxte moom Babacar Ndiaye ndax ku ci nekk moo dugg sa kër moo wax ak yow ba nga adhéré wu ci groupe bi ñun na groupe bi leen rek lañ ciy ñaan ca kaw ca kanam ci lu baax parce que ñun suñu koñ booloo doon benn rek ak ñor man nag su ma ci takkoo dem ci ba jeex dama ciy dem ba jeex parce que man man asumay ku ma xool xam ne man jigéen ju mën góor laa damay dem ba jeex lu rek dama ciy fees incha ñu taxaw ak jeune boo xam muy Omar Bass Omar Bass maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay pap waaw mu nekk lu am solo nga nekk jeune tey bokk ci mouvement UJET tey ñu gis taxawaay bi macha allah ngeen organisé bu journée bu am solo tey boo mënoon ñëwal ci journée bi loo may wax. waa ginnaaw dañuy sant yàlla xam nga di remercier aussi képp ku bokk ci membre UJET di la wax initiative bi boo ko gisee lenn rek moo ko waral mooy UJET dafa jug ngir lan ngir développement Tivaouane ngir développement jeunesse bi. vraiment tey ñu organiser ay don doon ndogu suñu xel dem ci daara yi parce que ku wax daara di xam nga situation ya fa nekk donc buñ amee ay pull ay yére tubay dàll ak ay ndogu yu leen jox suñ xel dem aussi yi wax hôpital gis nga malaat yi des fois da ngay jóge dëkk ba dëkk doo ñëw fii amoo kenn ku la taxaw donc buñ organiser lii rien que pour maanaam dimbale ñi nga xamante ni social daal moo tax a jóg social moo tax a jóg développement a jóg mu nekk lu am solo kàddu yooyu moom la Omar Bass dénk mbokk comme ni ñu ko waxee Étoile TV dara du leen ci rëcc incha allah mbokk yi ni ko waxoon ak TV ba léegi ñu ngi ndogu bi nga xam ne waa ISET ñoo koy def tey ñu ñëw fii ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh tey ki ñu dalal di Mapenda macha allah UGT dem fi nga xam ne mooy ci daara yi ci hôpitaux yi ak fépp fi nga xam ne foofu la ñu waroon waaye tey ñi ngi fii ci hôpital Mame Abdou Aziz si Dabakh Mapenda ñoo ngi lay nuyu waaw maa ngi delloo nuyu bu baax di lay jaar mhm. di leen jox seen wàccuwaay mhm. di kontaan bu baax na ci lii mhm. wax dëgg yàlla parce que lii dafa nekk loo xamante ni si bu dul dara sañ malaat yi fi nekk ak accompagnant yi tamit xam nga day baax ñu leen jox ndogu ci weeru koor bi mais xam nga di fee indi ay lekk yi tamit ñu ngi lay bu baax ci loolu am contentement bu baax di leen ziar bu baax a baax nag di wax ni li ngeen def nii lu rafet lu nice la ngi ñaan incha allah bu déwénee mu gën a yokk incha allah yéen ñëpp kenn bañ a manqué incha allah loolu la ñaan yàlla ñëpp kawe ca kaw bu gënee mu bu ëllëg bu déwénee mu gën a dépassé fii daal loolu la ñuy ñaan yàlla allah waaw di kontaan bu baax nooyu incha allah ñëpp kontaan hôpital bi ñëpp ñi nga xamante ki ko war a def mooy Sagna mu ñu yabal ñu ñu ñëw pour ñu kii nii comme que téewu ko mu ñu ñëw sécurité bi ñëpp taxaw di nuyu suñu grand Cheikh ak ñii ñëpp wax dëgg fa yàlla ay jàmbaaloon si liggéey bi yéen tamit ngeen ñëw ngeen def lii tamit ñuy kontaan bu baax a baax di remercier encore une fois kontaan bu baax ñu ngi ñaan bu déwénee mu gën a yokk incha allah ba léegi ñu ngi si ndog yi nga xam ne waa ISET ñoo koy def tey macha allah ñu nekk fii nga xam ni mooy daaray alquran macha allah di ñu nekk ci bërëb bu sel di fi nga xamni dara ji nga xamni imam Mansour sar moko taxawal waye tay ñu fekk fi ki nga xamni mo jité dara ji yor ko di jangal xalé yi aj Mustafa ay bala ñoo jori dañ koy mu nuy aj Mustafa ñu ngi lay nuy ñu ngi di delloo nuyoo mbokk yi jullit wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi leen di ndokkel bu baax ci wéru koor di sante yalla ci julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan li ngeen def yalla na ci yalla tek lox ci barke alquran ci def ngeen ko fuñ ko wara def wax ji yalla waxon garanti ko ci ku def lu bax yalla yalla yàlla dugal leen ci lolo yalla mo wax ni kep ku def ben bu bax ma fulandil lako ko ba juróom-ñaar fuk ba lu ma nak loola rek moko yor yalla mi nga xamni mo yor loolu nak yalla len ko defal amin inshallah allah tànk yi ngeen bëggee fii daal bu len ko reccu mhm. ci inshallah reccu du ci am mhm. ci carton yalla ak baxam imaam mu nekk lu am solo waaye tey lii ay ndaw def ko nekk ay xale yoo xam ne daanaka li ci ëpp a quatre-vingt pour cent ñi ngi dëkk ci koñ bi dëkk xale yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji boo amoon tey motivation booy jox xale yi wala ñaax goo leen di jox ngir ci li nga xam ne moom la ñu taxawal lan lay doon. waaw sant yàlla rek di wax ni lu baax moom képp ku ko def ñëpp dañ la cee war a fekk si waaye li ma leen di dénk daal mooy doxal leen rek ca góorgóorlu incha allah rabbuna ci kàttanu yàlla seen génération yëpp dana ñoo incha allah rabbi lu baax nag boo ko sosee yoon wa day sew lool yoon wa day metti lool waaye na nga xam ne moom dañoo wax ne an nafu baadal kadd njariñ moom mi ngi ci ginnaaw coona su ko defee loolu ngeen bàyyiwaal ka xel njëlbeen gi du neex njëlbeen gi du yaatu waaye mi xataa islam sax noonu la doore woon ci xarib la doore woon ñi nekk ci de saxaaba yi nekk ci nekk ci nekk ci nekk 39 yi nek ci nek ci nek ci ba mat 40 ñi nek ci nek ci ba l'islam egg fi kon na comme da ngeen taxawal association bi te yalla rek tax ngeen di ko dem pour dimbali daara yi ak mbokk julit yi ngeen dekkal yëpp yalla na ci yalla tek lox di barke Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam te bu kilifa gi dikkee dañ ko ko jotal inshallah allah te danañ ko waxe mu def ci ñaan ci kàttan yalla ak baam ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man maa ngi tudd Babacar Ndiaye

dinañ leen wutal ay eau de javel ay savon ay mbir yu nga xam ni dañ koy jëfandikoo ma ko doon lancé waale borom daara ji mu xam ko ni ko loolu bokk na ci sunuy ambition comme fi mu toll nii dafa am ci yeneen daara yu nuy dem dinañ joxante rendez-vous dinañu fi ñëwaat mais li ma bëgg ñu xam ko mooy ñun fi mu toll nii sunu objectif majeur mooy sunu loxo du jug ci daara yi kàddu yi mu jot a yëkkati yëpp dégg nañ ko dinañ ko jox rendez-vous beneen bu gàtt dinañ fi ñëw ñu waxtaan

Euh, di leen remercier vraiment di joxe rendez-vous ñu dem léegi ci daara bi ci top, incha voilà.